Alassane Cissé ñu ngi lay nuyu ñu ngi fàttali ne yow yaa jiite réseau bi ëmb journaliste maanaam taskatu xibaar yi nga xam ni euh, dañoo spécialisé wu en santé population développement euh, tey ji ñu gis ne détecté nañu premier cas bu euh, feebar bile di coronavirus ci réew bu Sénégal yow xibaar boobu lan la lay def en tant que citoyen waaw xam nga bi ñu déggee coronavirus ñu ngi koy dégg ci monde bi boobu ba tey ah, ah waaye ñun Sénégal aussi mi ngi doon waajal boppam parce que xamuñu fan lay jógee ak fan la mën a yegg si ba démb nag ñu wax ne am nañu benn cas dañuy rafetlu li gouvernement bi euh, leeral mbir mi euh, def une communication wax dëgg gi par rapport ak loolu daf ci am solo au moins day permettre nit ñi ñu xam lan moo xew léegi nag li ci war mooy ñu xool kaa boobu noonu lañ koy gérer gérer ko jëm ko faj ba mu baax mu wér euh, jàmm mais aussi ñu sensibiliser population waxtaan a ñoom wax leen yan mesure la ñu war a jël pour que euh, feebar bi boo bañ leen a dal te mesures yooyu nag du leneen lu dul ay mesures d'hygiène euh, cet la ñuy wax lool population bi war nañ ko wax war ko waxaat ba ñëpp euh, sax ci loolu. jëwriñ ji di di Abdoulaye Diouf Sarr démb mi ngi doon janoog taskatu xibaar yi ngir wax musiba bile ni mi ngi ci réew bu Sénégal. lu jëm ci wàllu traitement information bi ci taskatu xibaar yi la ko jëmale yow naka nga gisee loolu rawatina ci yi nga xam ni la ñuy joxe xibaar yi. waa ñun nag xaar ñu feebar bi yegg si Sénégal pour que membre yi nga xam dañu nekk suñu réseau ñu tàggat leen ci bi ñu déggee feebar bi muy nekk ay ay euh, Chine muy nekk ay Japon ak yeneen dëkk rek. ñun dañu dajale suñu waa association bi ñu waxtaan fekk waa ministère ñu formé ñu Euh, tàggat ñu ci feebar bi ñu xam feebar bi nan lay dikkee kan lay dal ak euh, ah nan la ñuy def ba moytu ko léegi bi ñu ko defee loolu dafa permettre membre suñu association ñu am euh, outil yi ya nga xam ni day permettre ñu joxe la bon information te boobu ba tey ñu ngi ci léegi nag dañuy rafet rafetlu démb bi nga xamee ni cas boobu am na ministre bi ci boppam ñëw taxaw wax ak journaliste yëpp wax leen ni lii moo am Sénégal loolu information responsable la léegi nag journaliste yi ñu koy jox également ñooñu noonu lañ ko war a relayer ba population yi aussi seen xel dal ci loolu parce que waruñoo tiital population ci coronavirus coronavirus feebar la dëgg la ah, dinay rey mais ñi ci wér ñoo gën a bëri parce que boo xoolee nee nañ ci ci téeméer boo jël ah, juróom-ñaar fukki ak juróom-ñett yëpp dañuy wér ah waaw donc loolu ah, quatre-vingt-dix-huit pour cent laa bëgg wax dañuy wér donc loolu dafa am solo ñu koy wax population yi waaw. feebar bi tey jii mi ngi ci suñu réew. Alassane Cissé ñu bëri nag seen fit euh, dafa dem. wante dafa mel ni li gën a am solo moo di ñu gën a miser ci wàllu sensibilisation gi ak cet gi ak conseil yi nga xam ni euh, jëwriñ ji di Abdoulaye Diouf Sarr joxe na ko. tey jii seen information ci loolu lay gën a jublu. waaw mais dama dama jàpp ni ñoom euh, dégg nañu aussi message yi ñu leen waxoon mooy une information responsable te loolu ñoom noonu la ñu doxalee. tey da ngay dégg ci journaux yi wala ci ci ci ci rajo yi wala ci télé yi nii vraiment dafa Sénégal dafa war am consensus fort nga xam ne ñëppay ànd pour que ñu xeex euh, jàngoro ji. gouvernement bu Sénégal jug na ngir xeex mbas mi di coronavirus ba tax na niki démb njiitu réew mi Macky Sall wax na ni dina euh, def lu toll ci ñaari milliards ci suñuy koppar lépp rek ngir ñu mën a xeex mbas mi li ndax loolu tey ji mën naa dalal xelu askan wi. loolu nag dafay dal xel day vraiment waa Sénégal taxaw nañu pour que feebar bi bañ a bañ a law ci réew mi. vraiment rafetlu naa vraiment le sens responsable bu ñuy traité information bi ci suba ba tey waxtu yàlla. lu jëm yi tamit ci wàllu formation journaliste yi maanaam taskatu xibaar yi rawatina ñu nekk ci biir réew mi ca frontière ya loolee dina nekk lu am solo yow tey yaa jiite taskatu xibaar yi nga xam ni seen xel dafa màcc jëm ci wàllu lii di wér gu yaram naka ngay doxalee ak ñoom ak formation bi. pour que membre yi nga xam dañu nekk suñu réseau ñu tàggat leen ci bi ñu déggee feebar bi muy nekk ay ay euh, Chine muy nekk ay Japon ak yeneen dëkk rek ñun dañu dajale suñu waa association bi ñu waxtaan fekk waa ministère ñu formé ñu euh, tàggat ñu ci feebar bi ñu xam feebar bi nan lay dikkee kan lay dal ak ah, nan la ñuy def ba moytu ko léegi bi ñu ko defee loolu dafa permettre membre suñu association ñu am euh, outil yi yi nga xam ni day permettre ñu joxe la bonne information te boobu ba tey ñu ngi ci journaliste yi nekk dakaar surtout ñu nekk suñu association ñoom ñëpp tàggat la ñeen ci mbirum waaye des na parce que journaliste du Dakar la ñu nekk am na journaliste yu nekk ci région yi moo tax ñu ngi waxtaan ak waa ministère de la santé pour que ñu euh, mbokk journaliste yi nga xam dañu nekk ci yeneen région yi tamit ñu tàggat leen ci feebar bi ñu xam ñoom nan la ñuy informer ci maladie ba nga xam ni fu nit mën a nekk ci Sénégal ak rajo booy dégg ak télé booy déglu ak journal booy liir nga war a mun a am la bonne information par rapport à la maladie et yaakaar nañu waa ministère bi ñu dégg ci loolu jàppale ñu pour que ñu dem former suñu ndaw yi nga xam ne ñu ngi ci yeneen région yi léegi nag dañuy rafet lu démb bi nga xamee ni cas boobu am na ministre bi ci boppam ñëw taw wax ak journaliste yëpp wax leen ni lii moo am Sénégal loolu information responsable la léegi nag journaliste yi ñu koy jox également ñooñu noonu lañ ko war a ba population yi aussi seen xel dal ci lool parce que waruñoo diital population ci coronavirus coronavirus feebar la dëgg la ah, dinay rey mais nit yi wér ñoo gën a bëri parce que boo xoolee nee nañ ci ci téeméer boo jël ah, juróom-ñaar ak juróom-ñett yëpp dañuy wér ah waaw donc loolu ah, quatre-vingt-dix-huit pour cent laa bëgg wax dañuy wér donc loolu dafa am solo ñu koy wax population yi waaw. ñu fàttali ne feebaru Ebola amoon na fi tàng wante ñu gis ne seen réew bu senegal fexe woon na ba jëlee ko fii ak benn cas tey ji mbasum virus moo ñëw yow mii nag di Alassane Cissé nga mu nekk défi bu mag ci yow ngir rek noonee nga xam ni la taskatu xibaar yi doxalee woon ba rek askan wi ñëpp nekkoon ci jàmm ak Ebola ñu mun ko doxalee tey ji ak feebar bi di coronavirus. waaw tax waaw taxawaay boobu ñun ñu amoon bi Ebola amee taxawaay boobu la ñuy amaat ci ci coronavirus bi mooy dañ sensibiliser le maximum population pour que mesure d'hygiène yi nga xam ne ñooy tax feebar du yegg si ñu war ko mën a appliquer di ko def du ñu tàyyi nag ci di ko wax muy ci rajo yi muy ci télé yi muy ci presse écrite bi wala ci presse en ligne bi du ñu tàyyi di ko wax bis bu ne nañ nañ ci wax waaye dañuy bëgg tamit nguur bi jàppale ñu ci loolu pour que au moins ñu mën a sensibiliser davantage population yi te moo tax ñi ngi rafetlu sax li nguur gi débloqué xaalis boobu ne day jàppale xeex bi loolu dañ koy rafetlu te comme président wax na ko bu jaree sax ñu yokk dañ yokk loolu day dalal xel euh, waa Sénégal ne xam ni ah réew mi kat taxaw na fagaru na euh, pour que coronavirus bi bañ a law ci réew mi te ñun journaliste tamit suñu role mooy aussi sensibiliser les populations donner la bonne information te boobaa ñu denc taxaw euh, vraiment information bu baax bi ko jaaxal ci yenn yi daal incha allah. tey jii ñu détecté lu toll ci 3000 cas de décès maanaam ñi nga xam ñàkk nañ seen bakkan ndax feebar bii di coronavirus Alassane Cissé ndax loolee mun na tax rek ba askan wi gën a ànd ak tiitaange. waaw ñun dañuy rafet njot rek ni du dal sénégalais yi wala africain yi wala. Euh, feebar bi daal du law loolu la ñuy rafet njot rek quoi te yaakaar ne daal euh, waa kër docteur bi nekk ci monde bi dinañ def tout ba maîtriser feebar bi xam nga feebar yi moom yëpp ay moom feebar bu dul reye moom amul léegi nag coow li coow li mooy nan la ñuy def rek ba maîtriser feebar bi def tout pour que mu bañ a propagé mooy li ma doon wax ci Sénégal rek euh, suñu waa kër moom xarañ nañu lool te rafet nañ jot ne ni ñu euh, géré woon kaaw Ebola bi boobu tam dañ ko géré noonu ba jàmm rek am. feebar bi mi ngi wéy di law ci àddina bi mu jaaxal àddina wërngal képp tey ji nag ku nekk da ci ak yàb bi ndax Alassane Cissé tey ji euh, seen réseau bi mi ngi lëkkaloo ak waa Corée ngir rek képp ku taskatu xibaar ci réew bu Sénégal nga mën a wax askan wi la nga xam ni moo am ci feebar bile di coronavirus. CORED tamit xam nga ay partenaire lañu tamit ñoom dañuy waxtaan ak ñoom ci mbirum déontologie ak éthique te loolu dafay am solo également ci nit lu muy yëngu rek ñi xam ne ñoom ñoo ko féete kaw ca loolu ñuy waxtaan ak ñoom ñuy échange ak ñoom ca loolu. dama dama jàpp ni ñoom euh, dégg nañu aussi message bi ñu leen waxoon mooy une information responsable te loolu ñoom noonu la ñu doxalee tey da ngay dégg ci journaux yi wala ci ci ci ci rajo yi wala ci télé yi ni vraiment dafa Sénégal dafa war am consensus nga xam ne ñëppay ànd pour que ñu xeex euh, jàngoro ji loolu nag dafa dafa dafay dal xel day wane ni vraiment waa Sénégal taxaw nañu pour que feebar bi bañ a bañ a ci réew mi. mi ngoog ñu ngi koy jaajëfal bu baax mu nekkoon Alassane Cissé di euh, président bi jiite réseau des journalistes spécialisés en santé population et développement.